bu mag bu taaxul wolof suñu baay Cheikh Faye di chef de village bu taaxul séeréer yàlla yàlla may ko wér delloo ko ci sagoom ba ñëwaat ci suñu biir di fekkee lépp incha allah ñu nuyu imam yi imam tin moo fi teewal mboolem ko imam ñoo koy nuyu di ko ziar di nuyu mboolem imam yi waaye di nuyu mboolem notable taaxum yi su ma tuddee sunu baay Ablaye Thiaw mboolem koy notable dugg ci biir ma lay yóbbante nuyoo ci sama baay ba baay Dibor Lo mag ñooñu ku leen ci taaxum tudd nga magi taaxum nañ fi baay Baara baay Mbay Kama ku lim jur su ma tuddee baay Ablaye Thiaw mi nga xam ne ñoom ñoo xewle waa Thiawéne daanaka tudd naa ñëpp Baye Ablaye ñoo ngi lay ndokkeel ci seen bis bu tedd bii di ñaan yal na leen jig muy bis bu ngeen mérito seen famille muy bis boo xam ne bii bis bu war a am sens la ci képp ku yeewoo ci Malicounda ci ne liggéeyal sa dëkk rek moo am solo. jariñ say askan rek moo am solo ndax lépp day jeex lépp day wees waaye bu lëpp jeexee jëf ju baax nekkin bu baax dimbale sa askan rek mooy fi des daay ma bis bi loolu lay wane tey ndax sunu bàyyi alaaji jibril caw yàlla yàlla yóbbu ko ca àjjana gën a kawe fayal ñu ko su fekkoon ne dafa nekkoon fii moom ak sunu bàyyi ngeen tudd fii sànq muy bàyyi alsan fay yal yàlla yërëm ko di bàyyi bone fay yal yàlla yërëm ko di bàyyi bàyyi monsieur le bàyyi Ibrahima Faye yal yàlla yërëm ko ku lim muy mag ñooñu ñëpp nga xam ne lu baax rek dañ fi nekk woon ba tey jii ñu woon ñu ginnaaw ñu woon ñu ginnaaw ñuy roy ci ñoom allo allo ñu wan ñu ginnaaw ñuy roy ci ñoom loolu ndam la ci njaboot gi waaye soññ la ci ñun ñëpp ci ne def lu baax rek moo am solo nekkal sa askan rek moo am sol kon famille sunu baay Alaaji Jibril Thiaw ñoo ngi leen di félicité ci bis bu mag bi di ñaan ndono bi fi baay Alaaji Jibril Thiaw bàyyi gëm nañ ne sunu baay Ablaye Thiaw mi ngi koy continuer di ko dundal waaye ñun xale yi nag ñoo ci war a roy ba bu mujj ci ñun mukk poso bi bu mujj ci nii di réer nañ xool fañ tegoon seen tànk lu baax lañ doon def sacrifice yi tax tey ñu leen di féetee ñu sax ca loolu loolu rek moo am solo fekk bi loolu rek mooy quintessence kon monsieur Thiaw maa ngi leen di féliciter yéen waa école bi yëpp nag Alaaji Jibril Thiaw mënoon na tudde bari na mënoon nañ ko tudde hôpital bi mënoon nañ ko tudde ay mbedd mënoon nañ ko tudde ay juma waaye yàlla nag xel mu rafet moomu ci waa école bii la ko def jaarale ko ci Cheikh sey moo tax le directeur Cheikh sey vous avez tout le mérite Alaaji Jibril Thiaw suñu baay fii ba kanam àdduna di tukki bu ko def fàttali bu di wax histoire Cheikh sey moo bind histoire bi ndax moom ak collègue enseignant yi ñu bokkal école bi maa ngi leen di félicité ci seen taxawaay yéen tamit yéen a am xalaatu waxtaan ceeg parents bi yi ñëpp rafetlu ko ngeen ne école bi dañ ko bëgg a tuddee suñu bàyyi laaj ci biir coow waxtaan ceeg monsieur le maire Bakary Faye mu rafetlu ko waxtaan ceeg monsieur le maire Pape Maïssa mu rafetlu ko ngeen ñëw waxtaan ceeg man ma rafetlu ko ñu waxtaan ci conseil municipal bi conseil yëpp rafetlu ko

lu ñëpp teg seen bët ndax ku nekk xam na ne directeur d'école nga nekk ko at bu jot résultat yi di yokk di baax ah am nga ci cër bu rëy waaye enseignant yi tamit am nañ ci cër bu rëy waaye xale yi tamit war nañu njàmbaar ba loolu am kon yéen ñooñu ñëpp ak parents d'élèves ñoo ngi leen di jaajëfal di leen félicité di wax bis bi yal nañu jig ah suñu bàyyee nag bàyyee nañ seen waar. ba woon ñu ginnaaw ñoo fi des li am solo suba mooy monsieur le maire Maguette Sène ak équipe bi mu fi nekkaloon di monsieur le maire Bakary Pam Maysa ak yeneen conseillers at yi ñu fi nekkoon lan lañ defal taaxum loolu rek la ñuy laaj ndax ba alaaji ju ñu coow di dundam gi di yàgg yëpp li mu defal taaxum rek la ñuy fàttali mu lay ëllëg di leen ne monsieur le Maysa ak Bakary ak maire Maguette Sène bi ñu fi nekkee. courant amuloon taaxum waaye fexe nañ ba yóbbu courant bi ñu juuf fexe nañ ko ba yóbbu ko Ngogol fexe nañ ba yóbbu ko kër Mottin fexe nañ ba yóbbu ko kër chef de village fexe nañ ba yóbbu ko ci amoo yu bari yóbbu nañ ko kër ay bi loolu rek moo am solo ba kër àdduna di tukki mboolem jigéen ñi àndoon ak ñun di xeex loolu seen ndam lay doon de seen ndam lay doon yéen jigéen ñi mboolem ku ànd ci liggéey bi bu ëllëgee di nga ne ba ñuy def courant bi rek ka ko doon def ñun ñoo àndoon di ko jàppale kon boog ndam li du maire rek de waaye yéen ñi ñëpp ànd ci liggéey bi jërë ngeen jëf jigéen ñi jërëjëf Assoumbe jërëjëf Gane Thiaw ak ñoom àndal di politique ëllëg histoire dina ne waaw sunu bàyyi El liggéeyal na taaxum ba ñëpp gis ko waaye monsieur le maire Maguette ak ñam àndaloon lan lañ def taaxum. ñu ne dañuy ñoom taaxum de ndox ndox amatuloon de waaye indi nañ fi ay partenaire de ànd ak ñoom ci dëkk bi bëgg xëcc forage bu ñëw ci dëkk bi ñu ànd ak partenaire yooyu chinois yi di wër dëkk bi jël ay sàkket muur kilo bi ne yi fi nekkoon muur dëgg la ko forage bi xëccoo bu métti la te chinois yi bu ñu xamoon ne taaxum am na benn robinet château d'eau du fi ñëw jour bi fi chinois yi waree ñëw dañoo war dëkk bi jël ay sàkket di muur robinet yi pour ñu ne taaxum amul dara ci ndox noonu lañ défendre projet bi dox ko tànk par tànk ba tey forage bi taxaw lépp dina sotti ndox mi dina ñëw te na wala ngaan ba keneen àdduna di tukki loolu rek moo am solo incha allah yàlla na yàlla dimbale. ba suba bu ñuy lim la fi équipe bu monsieur le maire Maguette Sène Mbacké rek Pape May ak Sugay ak Gaan ak keneen ak keneen defoon yàlla na ci yoon bokk. yàlla na ci yoon bokk amiin amiin amiin am nañu yéene bi def na ko ci xol ci sunu yéene ko yàlla topp na ci yàlla na ko yàlla def ci barke bis bi yàlla na ko yàlla def. ci barke alaaji Jibril Thiaw yàlla ko yàlla def ci mag yi ci barke mag yi taaxu yu baax yi kon loolu laa bëggoon a wax ci bis boobu mooy doomu aadama boo nekkee ci réew lenn rek moo am solo mooy nga fexe jëf te réew mu am te boo fa jógee ñuy tudd seen jëf yu baax bis loolu rek lay wane kon ñun ñëpp ñi yëngatu ci wàllu politique nañu jël loolu def ko ci suñu kanam. nañu bàyyi intérêt personnel yi nañu bàyyi suma dara sama poche poche du wax poche doo ko gis waaye li gis nag mooy la ñuy liggéey mu des fi daay man ba bëgg a wax jigéen ñi ne leen insha allah bëgg nañu suñu juróomi at yi la ñuy lim poste santé bokk ca du yàgg dara dinañ ñëw tàmbali liggéeyu poste santé bi commune bi voté na ñaar fukki million ak ñaar pour tabax poste de santé fii Taaxum. ay eh waay tàccu leen loolu. ku nekk xam na ne Taaxum ci seen maternité bi mooy poste de santé di maternité à la fois. moo tax conseil municipal bi débloqué na ñaar fukki millions ak ñaar. entrepreneur bi ñëw na ba natt ko incha allah du yàgg dara ñu tàmbali liggéey bi kon ñun li ñuy yitteel loolu rek la ëllëg ëllëg incha allah. doomu aadama it nañ seede ne jigéen ñi taxul li ci politique jigéen ñi taxul li nga xamoon ci politique mooy daw tàccu dugg ci oto ñibbi. waaw waaw waaye histoire dina ne monsieur le maire Maguette Sène ak équipe am bañ fi gaaree. ci seen i milions roy nañ ci seen bàyyi El ji Djibril Thiaw. roy nañ ci mag ñu baax na ba jigéen ñi ba ñu àndeek ñoom. booba amuñuy million waaye balaa ñu leen di bàyyi ay million la ñu lem ci seen biir kees loolu yàlla loolu histoire moo ko lëkkale. kon lii rek moo am solo maa ngi jërëjëf laa waaye kon bu baax Cheikh Seye jërëjëf l'équipe enseignante jërëjëf man mii jaar ci enseignement xam naa ne kenn mënut a fay benn bisu jàngale kenn mënut a ku ci nekk askan wi dañ laa amal njukkal bu am incha allah bànqaaj yi coordination bi nga def ci activité bi ñoo lay félicité bi yow def yow laa amoon ci ay kàddu. Thank you. I'm